Bakary Diédhiou. Mhm. Je m'appelle Bakary Diédhiou. à côté, je suis le voisin. Ah, c'est un grand plaisir pour euh, ah, il faut d'abord féliciter les joueurs, l'entraîneur, parce que loolu c'est pas facile à avoir. Ils se sont qualifiés deux fois consécutivement à une finale de Coupe du, euh, d'Afrique. Lolo Moussoula dans l'histoire euh, du Sénégal. Donc ça veut dire qu'il faudrait véritablement féliciter l'entraîneur et l'ensemble du peuple sénégalais, la fédération et l'ensemble du staff technique. Kontaan waaye Pape Matar ah Sarr ça nous a pas surpris ah, parce qu'il a grandi dans nos mains. On savait qu'un jour hein, ah, il serait à ce niveau. Et ce qu'on attend, on sait que dans l'avenir, hein, ah, c'est lui qui représente l'avenir du football sénégalais. il n'a que 19 ans. donc c'est sa première sélection au niveau national a ah, vraiment kontaan nañ trop qu'il soit sélectionné parmi les 28 c'est pas évident soo gisee l'ensemble des joueurs ñu nekk en Ligue 1 en France en Allemagne en Premier League ñu sélectionné la parmi les 28 ça c'est un grand mérite et c'est une fierté pour nous ñu ñu nekk en euh, ses parents en de voir notre fils à ce niveau Et tout ce qu'on attend du Sénégal, on a joué en 2002. On espérait gagner, on n'a pas gagné. 2019, nous espérait gagner. Malheureusement, on n'a pas gagné. Je pense que bi, ça sera la bonne. Hein? Et véritablement, soo xoolee Pape Matar Sarr soo leen gisee dans les U17 ah il a toujours fait de bons tournois ah il a toujours représenté et cette année vraiment ça sera la la la bonne occasion ah pour ñu remporter la coupe. man en tout cas aw ma jot quoi j'ai pas peur ah cette fois-ci j'ai pas peur je pense que ça va allah. bon c'est deux grandes équipes hein ah surtout représentées par deux grandes stars au niveau de l'Égypte on a Mohamed Sall euh, Mohamed Salah qui a été deux fois Ballon d'Or et à notre niveau au niveau du Sénégal on a Sadio Mané qui aussi Ballon ñoom ñaar yëpp ils jouent dans le même club. ah ça sera véritablement le match qui va les ce match la final moo leen di départager ah ku gagné daal euh, en finale bi il risque d'être euh, ah un ballon d'or ah pour l'Afrique et ça c'est important. Mame Bassine Guissé. magam laa. magam. kontaan lii rek lañ doon ñaan yàlla ñaan ñu woon leneen dund ba mu nekk équipe nationale fekkee lii yàlla na bokk ci ñiy indi ndam bi incha allah. mooy suñu fierté. moom rek lañ am moom lañuy ñuy tiitaroo. indil ñu coupe bi. waaw début bi metti woon na muy lu gënoon gëmoon aussi moo tax mu yegg fii tey lu mu mus gëm la ñun amoon nañ si moom yaakaar. lu mu bëggoon la rek bu daan tëdd sax da nelawaale ak bal léppam bal la woon. dadaan jël bal bi sax di ko njëganaayoo. mu gi nit ñi dañuy wax sax di reetaan affaire yooyu muy lu mu gëmoon lu mu bëggoon lu ñëpp fekke aussi xamoon nañ ni un jour vendra dina am lii. fierté bu rëy la ñun mooy suñu fierté buñ demee ba léegi ku wax tudd ko rek moom moo tax ku wax tudd ñu moom moo tax dañ koy ñaanal yàlla lafal ko cat li mu bëgg moo ko xam bàyyiwul kenn lu mu am bokk na ko ay mbokkam bëgg ay sëram bëgg léppam di taxawu ñëpp nag yàlla na ko cet siixlu rek dañ koy ñaanal yàlla may ñu ndam incha allah mu bokk si ñi njëkk a indi Coupe d'Afrique. ça waaw waaw waaw ah, lii pour tey final bi rek ah. waaw waaw final bi jël ndam bi rek waaw ñaata ñaata yàlla lu mu tudd rek loolu la ah, loolu xam naa ni Égypte dina dugal moom Sénégal Égypte moom dina dugal moom benn deux rek deux rek deux waaw. fayu waaw. ah Kayam Samari. Samari waaw. waaw. waaw. Pape Matar mu ñu dugal ko rek. waaw. mu def mu war a def rek. ah, ah football. ak yàlla lu mu def rek. Ah. waaw. dugal. waaw ah, day dugal kay. Ah. incha allah. waaw. mu dugal. indi coupe bi waaw. waaw. <laughs>